cant ak ngërëm ñeel leen cond beeg ñun suñuy programme Guédiawaye info TV yi dal leen jàmm ci xibaar yi ñu doore ko ak lu ñeel affaire Adji Sarr Ousmane Sonko doyen des juges d'instruction nag mi ngi rek daal di déglu kii di Ndeye Khady di borom salon de massage bi suite boti fa Adji Sarr nag doon liggéeyee audition bi nag tàmbali na bi fukki waxtu demee ba toftal juróomi simili lu war a tolloog sax ñaar fukki doomu aadama ñëwoon nañu rek ngir soutenir Ndeye Khady Ndiaye moomee ñu sax dàkk ca couloir rek ya ñu eh, nekkoon ci ñooñee sax eh, bokk na ci jëkkëram ji di Ibrahima Koli ñu war koo déglu moom itam eh, comme témoin ci mbir mi Cheikh Yérim Seck daal dinay jël ndogal génn ci vie publique bu Sénégal muy xam ne ni ci jamono ji muy bind li muy jàng doomam jooje di Souleymane Seck mi ngi génne ci kaso yu mbuur yi jëm seen kër foofe ca sali mu toll nag ci fukki at ak juróom ñeent kese moom nag muy xam ne ni dafa laaj mu taxawu ko ko moo tax rek mu daal di jël ndogal génn ci vie publique bu Sénégal maanaam dootul wax ngir mën a am jot toppatoo doomam lépp lu jëm ci journalisme ak analyse politique ba nga xamante ni doon na ko def euh, feeñ télé ak journalam boobee di Yérim Post lépp rek da koy daal di teg ci suuf waaye it par ba mu amoon ca Dakar Actu dina ko rek daal di jaay ngir toppatoo ay doomam ak soxnaam loolee la xamle ak yaayam joojee muy jublu nag ci cabinet bi mu rek daal taxawal di yëngu euh, ci wàllum euh, Euh, communication ci fàttali ci weeru juin bee ñu génn euh, doomu Cheikh Yérim Seck boobee dañu ko rekk daal di tuumaal mbirum viol ki amal li ni mel nag di ab euh, gone gu jigéen toll ci fukki at ak juróom xale boobe tamit dafa rek daal di weddi woon lépp loo xamante ni doon nañ ko ko tout mal ginnaaw bi nag daal di nañ koy téye juróom ñeenti weer yoo xamante ne daal di na koy tëdd moom Souleymane Seck moomee sax jàppale ne chambre criminelle bu cour suprême daal dina koy mujjee bàyyi Oumy S ci loxo yi ka mu doon wax nii moo ko doon violé di n d di app ab buxaabakat bu ko doon gëmloo ne daam ay pouvoir bu ko mën a dimbali ngir mu am baccalauréat boobee nga xamante ni mi ngi koy def ñetti at a ngi nii suñu sukkandikoo nag ci xibaar yi ab bouteille rek la ko daal di jox mu mujjee daal di tàggalikoo ak sagoom bi liggéey bi nag dañee ummi dafa rek daal di dem daal di porte ji kii di Ousmane bi ko takk der yi nag tegee loxo weddiwul waaye nee na yoon yi mu àndeek moom yépp xale bi da cee ànd waaye terewul charlatan boobee eh, def nañu ko garde à vue ba jébbal ko eh, procureur bu tribunal Pikine waaye ngir eh, wàllum viol Pape Amadou Sarr daa dinay jébbal lenge yi kii di maam Abi Seye moomee ko wuutu ci bopp DRFJ loole nag mi ngi xew ni ki démb moom nag mi ñu fa rek daal di tekk ñu ngi ko fa tekk fukki fan ci weeru mars bi ñu génn ginnaaw nag bi njiitum réew mi Macky Sall jëlee dogal jëlee fa Pape Amadou Sarr moomee daal di tekk ca bopp deer ba eh, kii di Mame Abi Seye comme nag fi mu toll nii eh, lenge ya nañ koy joxe fi mu toll nii nag mën nañoo wax ne eh, liggéey ba mën na tàmbali foofee ca deer maire bu yees bu ville bu Guédiawaye Ahmed Aïdara daal di nay nag amal déclaration de patrimoine am loole nag ci loi relative à la déclaration de patrimoine di gérer ab budget bu toll wala sax mu ëpp benn milliard kon nag Ahmed Aidara daal dinay dem foofee ca OFNAC def déclaration de euh, patrimoine ñu wax lu doy waar la am ca mairie bu Parcelles Assainies foofee nag jumtuwaay bokk moomeel ba lañu rek daal di sàcc ba session ba ñu doon amal sax dañoo mujjee rek luy ay chaise bu fekkente ni nii tuuma lu ñu kenn ci mbir mi équipe municipale bu bees ba euh, daal dinay nemmeeku ni équipement yooyee yu bëri sax mi ngi doon jóge ca euh, bërëb yooyee kon jàppale ne uh, foofee ca mairie bu Parcelles Assainies liggéey ba mënul door ña nga xamante ne sax ñooy adjoint ya uh, munuñoo rek rejoindre seeni bureau ndax équipement ya fa nekk rek lañu fa daal di uh, jëlee fanweeri at ak benn ginnaaw guerre bu golf ñi seen waajur loru ci boobule guerre seeni jabar ak jàmbaar ya sax dellusi ci boobule guerre daal dinay nag sóobu ci ab grève de la faim li ñuy nag sàkku moo di ñu fay leen seeni ndàmpaay toll ci benn ay millions ci suñuy koppar kenn ku nekk ñu jàpp ne loole injustice la te euh, fanweeri at a nii ak benn ñuy dund ak moom ndax état saoudien bi génne na xaalis bi waaye état bu Sénégal rek moo daal di teg loxo ci kopparam googee ñuy xamle ni sonn nañu tàyyi nañu te dinañ dem ba jeex grève boobee sax euh, duñu ko rek daal di euh, bàyyi kon nag mu nekk ñi nga xamante ni ñoo rek daal di loru wala sax bokkoon ci guerre bi amoon ca golfe fanweeri at a ngi nii ak benn ñuy sàkku rek ñu fay leen seen euh, ndàmpaay yooyee yéen a ngi fàttaliku Ngoné Socé toll ci fukki at ak juróom benn képp daal di jël soxna ñu partagé nag vidéo yi ñu bëri sax doon wax ne li ni mel du dëgg ab tournage clip la jàppale ne nag mbir yi weesu na foofee ndax soxnaam Socé mujj na am ab tout tànk ni kiy démb sax lañu ko rek daal di euh, fësal ñu jeexalee ak tàggat yaram gayndey Sénégal nag daal di amal seen tàggatu bu njëkk démb ca Maroc ngir rek waajal seen jonganteeg Égypte ci barrage qualification euh, coupe du monde 2022 mbokk yi lii la ñu leen fi indiloon ci ay xibaar di leen jaajëfal ci teewlu bi di leen jox dig daje ëllëg incha allah